njaw a ngi desaw xambin fii ci diwaanu Ndingler jamono jii nag waa jilaax ñoo woote ñi ne ñoom li ñu bëgg mooy waa Ndingler nañu bàyyi tout tranquille Babacar Ngom mu wéyal liggéey bi nga xamante ne moom la sumb suñu promoteur bii nga xam ne moom la ñu àndal muy ànd ak ñun di liggéey ak ñun Ndingler diñu ko yàqal suñu bakkan lañ ci teg tey suñu bakkan lañ ci teg suba dañuy ànd ak moom liggéey ak moom li ci teg mooy li ñuy def démb moom dañuy répéwaat dañ leen koy dëggal état pour Macky Sall dégg ko ministre l'intérieur dégg ko képp ko ne ci état dégg ko ndengi leer soo si doo ci teg tànkam parce que nañ fii dootu ñu teg tànkam képp ku dégg ndengi leer ak foo mën a teg ak foo mën a ne dootoo fa teg sa tànk. ñoom nag li ñu njort mooy am na ay politiciens yi nga xamante ne ñoo làqatu ci ginnaaw waa Ndengler di leen ruube ngir Babacar Ngom bañ a amal liggéeyam. Bassirou Diomaye Faye qui qui qui est quelqu'un je ne quelqu'un qui persiste dans des mensonges dans des contre-vérités. ak lu ci mënta am kàddu yu waroo feeñ na fii ci diwaanu Ndingler waaye ci xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko gouvernement bu Sénégal moo ngi sumb ay waxtaan ngir jàmm mën a dellu si ci biile gox.